asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet ba rawatina ci seen chaîne bi muy Serigne Djily TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu leen di baal xaq ñu ngi leen koy baalu ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawféex ak saadatu daaray ni ñu ngi koy sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu ko mbokk mi yaa ngi may laaj ma waxal la aslëf ci raf ci bët buy raf wala xef buy raf xef sax mooy rafu la yéen euh, dafa mel ni jotoon naa ci def waxtaan bu gàtt rek waaye xam naa danga jotutoon a dajeeg moom ma far la ko yaatalal ba ma la ko ba ci wàllu yaram ndax man nga ne dana yitteel ñeneen ñi sax ndax bari na lu ko mbokk yi laajaat lu bare bari xam nga ne raf moom yaram wi rafa ak fépp ci yaram wi ñaare nit ku nekk dana la dal ci yenn saay ay jamono moom nag man nga ne mën nañ koo xaaj ñaari xaaj wala ñaari déggin am na ci loo xam ne feebar lay junju am ci loo xam ne lu yaram wi manqué la am ci loo xam ne activité yi nu yaram wi def mooy waral muy sabab lenn ci parti yaram wi di raf loolu benn la am ci beneen boo xam ne nag mën na la ay junju la ay màndarga yoo xam ne yu lay tegtal lu dikkagul ndax xam nga ne yàgg naa la wax ni neewaa na li dal doomu aadama te suñ boroom ñaari junju ko ko mu ñëwee junj ko ko nag benn mën naa nekk ay gént mu jaarale ko ci gént mën naa nekk ay junju ci yaram wi mën naa nekk sax ay wax ci njanaaw wala boog ci gàncax gi waaye nag loolu lépp ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama te ñaare mu gënal ko ci lépp jox ko xel xel moomu nag la bëgg mu koy ñawal ba muy jàngat lum xamut di xam lum xamutoon ci li ko wër ba sax ci loo xam ne egg gu fa muy alamul barsax loolu nag moo tax danaa la ci masal lenn ci yaar yooyu yëpp incha allah bu dee mu njëkk bi nga xam ne ñaare ci yaram la nga xam ne ci daanaka ci médecine moderne lay dox yooyu bokk na ci liy sabab yaram wi di raf Euh, lu ñuy tuddee manque sel minéraux li ñuy tuddee naqsul amlah wal maadin maanaam xam nga ne yaramu doomu aadama dafa soxla li ñuy tudd ay sel minéraux comme lu mel ni potassium ak magnésium yu mel noonu ñaare bu fekkee eh, yaram wi da ko manqué te loolu yaa ngi koy jaare ci ay lekk wala ci looy naan li ci ëpp ci lekk lay nekk bu fekke yaram wi doo ko manqué manqué gu jéggi dayo mën nay waral lenn ci sa yaram wi di raf moo xam bët la moo xam tànk la ak partie bu mën a nekk ci biir koor ci yaram wi beneen biit mën na koy sabab lu ñuy tudde at tamarin riyadiya maanaam activité sportive wala boog ngay ñaq ñaq gu jéggi dayo loolu it mën nay waral lenn ci yaram wi di ak lu ñuy tudde tanawul anwa muayyana min al adwiya maanaam nga utiliser leen ci ay garab ay médicament yooyu nag mën nay indi dysfonctionnement ci ci ci ci ci yaram wi loo xam ne mën na koy màndarga di ko junju yaram wi lenn ci partie yaram wi di ak lu ñuy tuddee euh, al isaaba bil ishaal mooy biir buy daw daw goo xam ne leen daw gu jéggi la wala ngay def ay vomissement maanaam ngay wàcc wàcc woo xam ne wàcc wu jéggi daayu la moom tamit lu mel noonu mën nay sabab raf lu ñuy tuddee adamul xusul ala kamiyatin kaafiya min al ma maanaam sa yaram wi manqué ndox manqué ndox animi maanaam nekk man maanaam nekk animi moom yaram mi mën naa manqué ndox mën naa manqué vitamine mën naa manqué deret yooyu yëpp anémie da koy def waaye nga manqué ndox mu bari it mën nay waral sa yaram raf ak lu ñuy tuddee tawatur mooy stress maanaam ak jaaxle boobu ubu euh, yooyu it mën nay waral ak ak raf ak lu ñuy tuddee euh, maanaam di jëfandikoo lu ëpp ci caféine lu mel ne ngay jëfandikoo café lu bari ak kafe fa kafe bu mën a doon da koy jëfandikoo lu bari euh, baaxut moo xam kafe bi ñu xam nes kafe la moo xam kafe Touba la kafe Touba nag li ci baax nga xam ne lay indil ay jafe-jafe ci gën mooy nga koy booleeg jar te léegi mel na ne kafe yi ñuy jëfandikoo léegi li ci bari amul jar moo tax ñu ci baree bari fi ne di ci jële estomac ak yeneen feebar yu baree bari lu mel ne INSER moom it bokk na ci la koy sabab ak lu mel ni ataaya lépp loo xam ne day am caféine rek loolu ñaare euh, soo koy jëfandikoo lu ëpp man mën na laa yóbbu sax ba nga sa yaram wi di lox nga gis léeg-léeg ñu tudde dong feebar boo ngeen tudde dong nga xam ne say da ngay jékki di lox loolu café da koy joxe café gu ëpp bokk na ci it li nga xam ne dana mën nay def sa yaram muy daraf lu ñuy tudd xillatu nawm lu ñuy tudd insomnie nga xam ne li ngay nelaw bariwut euh, loolu mën na koy waral ak lu ñuy tudd amradul kulawi mooy insuffisance rénale maanaam ñaari rein yi nga xam ne moom la la yàlla jox te muy lu am solo ci biir yaram wi loolu mën na koy sabab mu eggee ci étape boo xam ne euh, lam war a liggéey liggéey bi wàññiku na bu baax a baax nga yëg muy raf ci parti yi mu nekk ci ndigg li loolu bokk na ci li koy junj muy raf saa yu nekk raf goo xam ne du taxaw rafuk taxaw bokk na ci lu ñuy tuddee xilal fi asabil umud muy dysfonctionnement euh, umudul faqri dysfonctionnement ci euh, colonne vertébrale bi jàpp alluqaa shawki bi yooyu su fekkee dafa am jafe-jafe te xam nga ne colonne vertébrale bi mën nga ne sidit yëpp ci moom la jokk sidit principaux yëpp ci moom la jokk neer yëpp presque ci moom la jokk kon ba muy dysfonctionnement rek yu mel noonu mën na koy junju di ak raf ak la ñu tudd al i'tilal al asabi mooy neuropathie mooy dysfonctionnement ci système nerveux bi nga xam ne sidit yi moom it euh, kon loolu boo ko waxee rek feebar yi feebar yi laal sidit mën na koy sabab kon loolu ci tënk boo ko jàppee ci ma lay waxal noonu ci wàllu yaram yooyu bokk na ci li koy sabab te yooyu nag ñaare bu ko xasee ba koy def def la goo xam ne dafa wéyal lay doon nga xam ne tout le temps dala koy jaaru alerte lay doon ci yaram wi nga war koo toppatoo war koo lijjanti xam naa nag xañ na yow loolu sax taxul woon ngay laaj maa ko ci boolewaale waaye li tax ngay laaj mooy ndax am na ay junj yu muy wane ci lu ñëwagut wala lim lay xebaar ci loo war a jot wala yu mel noonu loolu la ñuy tudde at na bu aat yooyu nag am na am na te mag ñi takkoon nañ ko te ñaari bari na lu muy dajaloon yooyu nag nit ki ci boppam moo koy seetlul boppam ndax xam-xam ñaar la li ci ëpp solo mooy ak euh, benn ak jàng la li ci des ak seetlu ak nag ak di di ñamal sam xel li ma la mën a jox ci xam-xam man nga ne jàng sax mënu la ko ndax jàng moom mooy buntu bi mooy buntu xam-xam waaye nag li ko yaatal mooy sam gëstu ak seetlu gi ngay seetlu sa bopp ci yu baree bare moo xam ci gént la moo xam li lay suñ borom di junju la loolu nag bokk na ci bët buy raf ne bët nag mooy xef yi xef yi wala yéen yi yéen moo nekk ci kaw xef yéen moo nekk ci kaw xef xef moo gën a jege bët mooy am karaw yéen mooy nekk ci kaw bët bi moom it day am karaw su fekkee foofa la ca kaw ñaara li ci ëpp lu muy tegtale moo xam bu gauche bi la moo xam bu droite bi la loolu mbégte la lay tegtale day tegtale mbégte wala ngay gis ko gis koo xam ne boo ko gisee maanaam lu mel na gan wala kon na moon loolu mbégte la ba tey lu ñuy tuddee yéen moom it kazalika noonu la bu dee ci suuf nag bët bi ci suuf xef bi loolu moom ñaari li ci ëpp lu muy tegtale dana doon naqar ci ñu ëpp ci nit ñi naqar lay doon moo xam bu droite bi la moo xam bu gauche bi la boo ñëwee ci nopp léeg-léeg nag nopp tamit nga jéggi-cekke nopp mel na li lu lu lu lu dara lu junj dara bokk nag nopp yuy riir nag nopp yu riir moom tension da koy def ak yeneen ak yeneen waaye boo amee tuuti ak seetlu nopp buy ak nopp boo xam ne day jékki-jékki rek junju am na différence loolu takk-takk bi ci am bu fekkee côté droite bi la loolu ñaare dég-dégu mbégte la bu fekkee côté gauche bi la loolu ñaare dég-dégu naqar la te ñooñu nag ñi nga xam ne ñooy liggéey tur yàlla li ci ëpp ëpp lu mel noonu da leen di dal loolu mën ngaa dem nag ba egg ci am lu lay junj mel ne am lu la wax dara rek ci sa nopp ndeyjoor bi wax gu gàtt gàtt nes tuuti nga gis ko loolu nag étape la boo xam ne kuy liggéey tur yàlla moom moo ca mën a egg boo ñëwee ci bakkan muy neex bu dee ci kaw bakkan bi am na ci ñoo xam ne ab tàgg lay doon ci ñoom bu fekkee day raf am na ci ñoo xam ne ab tàgg lay doon am na ci ñoo xam ne nag ak yëkkatiku lay doon ci ñoom. lii ma lay wax nag soo gisee ma lay ma ma ma lay wax ma lay wax ñaar yépp nit ku nekk ak ni ko borom subhaanahu wa taala di wane ak ci ak ak ni koy junjee bokkut bokkul ak sa moroom kon na nga jàpp yaar yooyu yépp am ci ak seetlu boo ñëwee ci li ñuy tuddee ay tuñ mooy les lèvres tuñ bu dee tuñ yi raf nag loolu ñaare li ci gën a bari ñaar ñaar lay taktale benn koo xam ne dafa am envie am rapport sexuel da boo amee tuuti ak seetlu da ngay gis tuñ yi di raf wala boog mën naa junj tamit coow luy ñëw xam ne dañ ciy wax ba sonn boo ñëwee ci li ñuy tuddee biir loxo nga loxo dafa am biir ak biti bu fekkee ci biir loxo bi la moo xam bu ndeyjoor bi la moo xam bu càmmoñ bi la ñaar bu fekkee danga nga gént muy raf wala da gis muy raf lu bari wala nga koy xasan wala nga koy xasan lu bari nii ñaare luy dugg sa loxo la looy jot la moo xam wërsëg la moo xam luñ lay jox la waaye bu fekkee ci biti loxo bi na nga gént muy xasan wala boog muy raf loolu mën naa tegte lu luy génn ci say loxo maanaam looy ñàkk bu fekkoon na da ngay dara nga koy yëg lu bari loolu na xam ne day génn ci say loxo boo ñëwee nag ci dënn bi ñaari dënn buy raf loolu dana tekki koo xam ne maanaam am tiit muy ñëw ci yow maanaam nekk tàgge wala bokk ñu tudd lu bari bokk dënn buy raf nag bokkul ak dënn buy tëf-tëfi boo xam da ngay jékki rek sa fi di dem da ngay jékki di tiit lu bari loolu moom euh, ku ñu yóbbu fi tam moo koy def lu mel ne saytaane wala rab loolu da koy def nag lu baree bari kon yii daal yaar yi na ko jàpp ci sa jëmm te lu yomb ràññee la nag loo xam ne feebar ko def ak loo xam ne ak junj la la suñ borom subhaanahu wa taala ci ay kéemtaanam ak fonk gim fonk doomu aadama di ko di ko xamal ci ci ci wet gu nekk ndax yàlla kat fu ne la la mën a dikke nu ne mën a wane te yi takk-takk yi mën a ci jox ñaare bari na lu muy daje lool kon ñu ngi lay sant bu baax a baax lii lañ la indiloon tey ji yow mi doon laaj